asalaamaaleykum waa Sénégal asalaamaaleykum àdduna ginnaaw bi ñu yàlla julli ci yonent bi ñu ngi am mbégte ak kontante boo xam ne bu yaatu la jàkkaarloo waat ak yéen a ah, yi ñuy topp si Diassi ji TV man cuq maa ngi am mbégte ak kontante boo xam ne bu yaatu la ah, jàkkaarloo ak le meilleur de sa génération di am mbégte ak kontante ci soppe yoo xam ni vraiment dañ maa bëgg tey nag mu gisee ni may kiiwee ni waxee ni nga xam ne damaa soj feebar sa bopp di metti sama yaram tàng <laughs> <laughs> Euh, jibi sa man kiiwuma ah sa man kiiwuma gaañ li li ma doon ne hôpital de parce que gars yi dañ dañ maa laaj ne ma luy métti mais sama bopp sama yaram tàng xaw ma ndax waaw mais su ma ko amoon nga xam ne maa maa bon ay wër kay di taxalaate jibi yow moom garaawul du ma la duma la ci boole sama kaar yaa may kaar mais ay samir ay diis

Mamadou Diop Decroix nee na Gaston ngi wérul hé hé réew maa ngi toj de nee na me ngi wérul de ndax limu mu wax naan ay Macky mën naa 3e mandat lolu duñ ko nangu wa lo den ci ñew bu baax baax ma ngi ciy sama sëriñ ah Lañ Jaan borom Dias ji TV yalla sa jàmm yag ak xam mo mooy Ablaye Faye eh, Sénégal den yëgal ni ñu may waja may auto bu leen ma ciatu ma kenn ciatu ma kenn kar ñi nan na la may essence ni ma yaqal <laughs> auto bi ñëwagul li eh, mu koy waaj a may mais ñaanal leen ma ngir yàlla ma amatu ndax passé sonal na ma mais jibi mhm. xam nga lan la euh, kii doomu kii laa dajeel doomu Abdoulaye Diouf Sarr moom wax lu lu garaaw ci Abdoulaye Diouf Sarr ne Abdoulaye Diouf Sarr da doon nelaw baay 6 heures du matin jabar jabaram yee ko yaayam yee ko ni ko Abdoulaye damay dem jox ma jox ma xaalis damay dem damay dem marché jox ma dépasse bi Abdoulaye Diouf Sarr naan ko ci téeméer ak juróom benn fukki test réalisé <laughs>

parce que Wally c' est le fils ton de c' est le fils de Thione parce que li koy dal di ko dal Wally businessman la il faut mu leer à part musique bi business lay def mais buñ ko tuddee ci ay oto mais c' est normal parce que moom nee naa ko Wally mu ne naa ma ne ko yow businessman nga parce que oto boobu ñu la tudd tey biñ koy jaay fekku la fa ñu wax ko ci net bi ku ne di taw yi mais ma gis sax gis naa sax benn benn site boo xam ne da ko dugal bind ma. Eh, coon coon eh, eh, dollar wali oto coon dollar wali oto mais li ñu bëgg xam naa ko mais du ma leen ko nangul man kaso bi ma fa yóbbee nekkul foo bii sax ñoo tax ñuy bund ay kayit lañ fekk sama kii jaawale ko daal di may taxañ taxañee yóbbu mais daal wali sans dérange wali day déranger et puis xam naa ni loolu moo tax ñoom ñu bëgg ko taxal ci ay kii mais nañu bàyyi xale bi ki nekk ci ginnaaw yëpp xam naa ko nag mais du ma euh, duma ci wax lu bari mais ki nekk ci ginnaaw jaxase yëpp xam naa ko euh, mooy kooku wayoon fi way bu. ah asalaamaaleykum waa Sénégal asalaamaaleykum àdduna euh, jàpp naa ni lii Gaston Mbengue wax wax la joo xam ni ju ju jaaduwul la ndax fi la toll ci gouvernement Sénégal. yëkkati kàddu yu mel noonu Gaston kenn wax mais mu yëkkati yoo xam ni euh, ça ne rase euh, mu ni Macky mën na defar troisième mandat loi bi da koo mayut loi ko ko xam nga loi loi bi li mu wax dafa leer dafa clair dani ñetti man ñaari mandat yu tegaloo mënul ko may mënoo def mandat defaat mandat tegale ko loi bi ko xañ Eh, bu fekkee nag day séntu lu ko mag fal ak yooyu ba yow mu teg ko ci suuf moom làmbu la xamal ak yooyu yow mu dem ci loolu mais di wax ci loo xamante ni bi dara leeru la ci xamoo ci tus ah nga naan day defaat troisième mandat loolu suñu bakkan lan te teg troisième mandat am na mooy joxe naan suñu bakkan ku dund doo gor fi loolu koy waxee Macky Sall bu présenté waatee ñu jaay ko suñuy bakkan maa ngi ñi ma àndal jiital leen maa ñi ma àndal suñu bakkan lañ koy jaay parce que bisu dee ma ki ya, troisième mandat fi dañ koy téré c'est est pas ragalum la de la rouge yow na da ngay jaawale ko la rouge ko la ragal ma fi ken tàppatu la ñu ñoo doon jàngandoo yaa nekkoon premier ba ma nekk deuxième sa mburu yag na ko nangu bu bul wax wa mu ngi noonu ah maa ngi man bekti ak contente ci sopé point xarit yi am de jamm tay ni nii leen xam ngeen ne wéeru ma ngi wax gaay ñaka na may mbalak mais je ne suis pas en forme euh suma ko néew itam yaa ma gëna xam waaw mooy loolu maa bu baax a baax ah, ci sëñ Ablaye Faye borom Medina Fall di bég ci moom di bég ci soppe xarit am di jàmm di bég ci Yacina ah, moom mooy moom ngeen gis noonu journaliste mag bi moom day journal day maquillé yàlla na sa jàmm yàgg Yacine ak saarata mooy seeti mbër yi waxoon naa leen ko naan ndox ji avance kee boo waxee mu dugal moom <laughs> Sarata yàlla na sa jàmm yàgg ak Jibi le grand cadreur di bég ci moom di bég ci sama copain nu mu tuddati eh. <laughs> ah Matar waaw Matar mooy def sant yàlla sa jàmm yàgg Matar yalla nga am jàmm Mouhamed maa ngi ziar ñëpp di kontaan ak mbégte ñëpp bégee